bawol ay point moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor. yëkkati addiya ju toll ci milliard jox ko. ma gis ñenn ñoo xam ne buñ leen dee tudd walla ñu leen di melal nenn sëriñ bee tax ñuy tigaloo loolu acam loolu de man rafetluwuma ko te la ma daa doonoon lu ma goxoon loo xam ne mënuma koo ñàkk bi yoon wi. tuuba li abdin muridin saadixin laxumoo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati kon ku gëm sëriñ bi te muy dëgg te na mel sëriñ bi tax nga mel ko waroo critiquer addiya juñ jox sëriñ bi ndax yow noo man di mel bu ñu roccee li sëñ bi def ci yow doo doon dara kon maa ngi ñaawlu loolu te di ko naqarlu tey xam ne mbàkki yu de li mu def ñun murit yépp la ko defal te ku ko amoon man ko danga nga ko defee ni mu ko defee kon ku ko santul gërëm ko ñaanaloo ko yàlla ñaan yàlla defal la loolu nga man ko yow waroo ko cee xarab te nag yaakaar naa ne wax joo xam ne bi mu koy wax Cheikh Mouhamadul bashiir moom sëriñ Abdul Xaadir mi ngi toog di yor kàddu gu yoon wi fa la ko waxe bu ko kooko fettasuwul ne ko noppil yow waroo koo àdduloo ne ko noppil te la makki yu wax de wax dëgg yàlla man danaa ko wax mooy président Macky Sall wax dëgg yàlla liggéeyal na Serigne Touba ci Touba gi waaye liggéeyal na Serigne Touba ca Ndakaaru ci Masalikul Jinaan ndax fañ def jumaa ja ñi xam Ndakaaru ñëpp xam nañ ne daf daan taa bu ñu fa defee assainissement bu tax dootul taa loolu war nañ ko koo sant te gërëme ko ko kon bu ko mbàkki yu santee ci kanamu Serigne Basiiru kenn ku jug di ko xarab ngir ne dafa sant ku defal Serigne bi yow kon dafa mel ne li la Serigne bi defal dafa laa jomb dafa mel ne li sëriñ bi defal mérité woo ko ndax koo tax ñu lay tudd buñ ko defee lee lu baax dalaa war a neex waaye warulaa naqari nañ xàmmee nag nañ ber sëriñ bi bu ñuy politique ñu politik gis nga man ku ma bëgg a laal laalal sëriñ bi man ginnaaw bi ma sante Mbàkke ba pare man damay am murit man wóor na ma ne man sëñ Tuubaa laa gëm man si Ahmadu Bamba laay dund képp ku laal sëñ bi ak koo mën a doon mën na maa jaar ci sa kaw jàll nañ bàyyi sëriñ beeg sëñ Muntaxa nañ bàyyi yoon wi ak liy doxal yoon wi kuy politique politique sa politique ku neex faral ku la neex waaye nag loo waxadi waxadi boo gisee nen ne nen ngi autoroute bii man léegi laa jógee Ndakaaru defuma une heure trente ci yoon bi bi ma ñëwee ci corniche bu bees bii Touba laa jaar hôpital bii ñu inauguré barki démb ki ko defal sëriñ Touba fu ñu taxaw sant ko war na rawat na nag Touba gii dañ ko war a gën a sante man président Macky Sall dama koy sant fu ma nekk parce que dafa defal sëriñ bi ku nekk xam na ne xaalis taxul ma koy sant ndax man am naa paas ak dépense waaye nag ku defal sëriñ bi man ma sant la te moom defal na sëriñ bi dañ koy sant bu baax te di ko gërëm am na ñeneen ñoo xam ne aussi bëgg naa ñu bàyyi leen xel réew mi Senghor nekk na fi ba jógee fi Abdoulaye Wade nekk fi ba jóge fi ab Abdou Diouf nekk fi ba jóge fi kenn mosu fee woote violence bu toll ne bii ñii bëgg jot ci réew mi di fi woote ku woote ki démb bu fukki nit ak benn faatu te yaa wax bi ngay woote ne na le combat mortel mooy combat bi ay bakkan mën na cee wadd le combat sera mortel mooy combat bi ay bakkan mën na cee wadd ñu dem génn ci mbedd mi fukki nit ak benn faatu ci at mi matagul nga soxla naa lu toll ci ñaari téeméeri deux cent mille sën ñu dem ca pale ba loolu ku ko wax ministre de l'intérieur maa ngi leen lancé appel da nga koo war a jàpp def ci kaso bi nit ñi xëy liggéey yi réew mi dañ koo defar ba mu agsi ba fii duñ bàyyi kenn di ko yàq képp ku fi woote violence dañ laa war a jàpp def ci kaso bi amul ma sàmba amul ma demba loolu mooy liy dëgg gis nga ñii ñu woo ba ginnaaw suba xaw ma vendredi lañ waxoon xaw ma ginnaaw suba buñ génnee duñ gis ñenn parce que mag mu jëm fenn du ci dem ndaw lu bëgg tekki du ci dem ay wëyu ak i sàmba booy nag buñ génnee danañ fekk force de l'ordre yi ci mbedd mi luñ bax danañ ko ngeer te affaire bi dama ne dereti nopp la du mooy mbagum borom sëñ Abdou Lahad ne woon na képp koo xam ne da ngaa indi saw ay ci dëkk bii ci réew mii bala moo dem ci kenn ci sa kaw lay njëkk këppu këpp nañ leen ko waxante yéen sama bokk yi nag yi nga xam ne yéen a dëkk Touba li nga xam ne président Macky sàll defal na ko réew mi waaye nag defal ko sëriñ Touba ci biir dëkk bii bu fekkente ne li ñu defal sëriñ bi neex nañu lim soxla ci ñun du dara lu dul aw carte wenn carte la ñuy ñaan nañ ko jox addiyee sëriñ bi te continuer ci liñ nekkoon ndax loo xam ne mënaluñ ko sëriñ bi bu ko nit mënalee sëriñ bi di ko defal dañ ko war a sant te gërëm ko lam bëgg ñu defal ko ko. Baol info point net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor.